ajuma Colle eh, Fouta man la Niass man la. Niass eh, Niass bi baaxul bul woo. jokkaloo kii fulu. jokkaloo ko rek xam nga jàmm moo gën lépp. waaw suma karit nga jokkaloo ko. jokkoo naa ko lóko. Eh. léegi code ajuma ya. dama lay sante di la gërëm di la ñaanal yalla nga am jam ndax yëkëti iya bi nga yëkëti dala ndam bi sa soxna si tek ko sama loxo ma nga sante ah. di la ci geureum di la ñaanal ndax nit yalla yalla defal la jàmm ajuma dalaan daa ajuma ajuma ajuma pël la fuuta ajuma nekk pël la fuuta ah ma dala dalaan man jaxal na ma gis nga yow gis nga yow man jaaxal nga ma. ñaas boobu ba léegi man maa la ko ka woo pour waxtaan. waaw ñaas xàccutaa ma moo di fi yàlla. gis nekkul sa saayis. kan nekkul sama saayis. nekkul sa lekke. ajama. yaa ngi toog. yii waxtaan ak ajum sama xarit. ajuma ça la ñëw. foo ñëw. marché laa jëm. loolu marché yu tamit nag heure bii. wuti samay bagage samay arsenal ak samay yëf. eh eh nga jot a andi lii lii lii li ci biir doyul. damaa indi rek yow loolu da laas naa la film bi ñëwoon man nee naa du ma la wàcc. sànq rayu ma la ba nga dee ba suul fi dëkk gi saa yu ma xëyee dina ziar du ma la bàyyi. sama. léegi-léegi <laughs> am na ci kanam. xam nga nag yàgg naa la mënu ma ko bàyyi. lii tax mënu ma koo bàyyi. nekk te pël la fuuti bi dalandaa feeñ kese kese pël la fuuti yi bëri nañ feem de. fee mi kese bi guddi gi daf may jommal di soppaliku di naawal te téye sama yi di ma lumpak di ma manq dalaan daa bu génn guddi rek tokk-tokk ndox yi nekk si yaram bi romb ñëw ba ci ànd bi sëgg rek def ko ci def ko ci ak ajuma dara nda bu dox ba bàyyi nuisé bi mu ya, yes voilà am naa loo man bëgguma nekkati yow ñes lan moo tax munoo jël sa jabar olof lii tax mënuma ko jël ñes yow gis nga olof nu mu ah yow bi nekkul sa size baax mo du couple andu ñes voilà min ko pula fuuta dala dab ko pula fuut waaw yaa ngi dégg yow léegi jëlal sa jabar nga jox ma suma déedéet man kayak bi dara de taal bi alaaji pap dara ki mu wax da ngay gaañ. mooy yow garaawul. gis yow. kii da lay nga gaañu fi. ma suul la ba pare ma ñew ma wax gaañu nga. xoolal dégg suma na ma waaj. na ma lum. na ma suul. na ma waaj. xale bee sax. gis nga yàlla nanguwuma yàlla nanguwuma lii déedéet yàlla nanguwuma lii. booba léegi kay seetaan yàlla yaa may seetaan waay nangu ma lii nangu ma yàlla ka seetaan kii bu dekka di ma waa lu ka dee yàlla bu laa seetaan loolu loolu Yatuhegemea Mungu wake. Mungu wake. Allo? Waa ñas looy dox di woote heure bi yeewi man maa ngi yaakaar gone géwél yee yeeti xëdd mu ne ay feri nag bu la ko joxee bu ko laal de daa xaraam ay féré wéré ko sa soxna di la ko jox nga jël bañal ba tëdd ca yax moyo ngay ayo ñass mi est-ce nit la eh. ñass mi nan day day téri fer eh, ki soxna ci da koy jox ay fer mu naan da koy jël man dafa haram man ni ko da haram da haram ci mom waye man xaraamul ci man ni dafa haram

Berdesaannya begitu. Belum jodoh, belum jodoh, belum berdesaannya. Belum jodoh, belum jodoh, belum berdesaannya. Belum jodoh, belum jodoh, belum bersepuluh hari. Ya. Kol kolan yang lebih kukuh. Udah, nah. Udah, ya. Bisa mandai. Kalau ini, ini nanya kana rabu ma jon bu nam jege day ko lax ni def joj bu ko top baaxul di ko dalay tede la ilaha illallah Aha. Aha. Urus bis. Kumi ka naman. Ben pagra. Kaya, kaya mo ko sa urus ni. Bakam galin. Ina ko wake baga podcast. Kaya naman ya. Yan do yaw. Iska sama anda yaw di. bu ñu nekkoon eh, bu ma nekkoon bëy bu góor yow nga nekk bëy bu jigéen ci gént. Mm. xam nga nu may def. waaw maa ngi lay tëdd ba guddi rek ma bo ah, yow. loolu laa xam ne lii dafa neex. Ah. Ah. Mm. daa am lu xamante ne. Mm. yow nag weeru koor yii nii baaxu si yaa gën a xam. bay rek mu dencaat ko naan ah bay ba après dafa leer. Fal moom tuddee lii galama. ah léegi seen tamit. dinaa fi dinaa fi fekk ci yëpp ma fi def yëpp di beer. voilà ñu doon leen wax ma ne tegu ma fi jeexal tegu ma fi jeexal laa la. wuy ma wuy ma bu yëg sa tension bi dafa. naa ko yëkkati de. waaw waaw waaw. déedéet kenn du ko def. yow kay li ma dia sant yëpp maa ngi yang def kay ñëwal ñu yang yang di sini yow nga yow def li ko lah ñaata iya, gitu, gitu. ñaata ini ne mau ñaata malah dulu ngi nii xooloo ma xoolu ma la lu dul teg ndogo teg reer rek nga fi def ah te da ngaa war a kontaan da nga war a bëgg déedéet yow man bañ na ko ba wax naa la nee naa soow di la mar. waaw waaw man ne ko naan kaay ma ci tàngal ma la. kaay ma ci tàngal ma la kaay ma ci tàngal ma la. dama laa bëgg biir. man ma ñu ma la fi. ah léegi nag. maa ngi bëgg biir yegsi yegsi yegsi eh sama tarax laa yi eh yegsi maa ngi teel a tarax laa yi te te demaguñ fi ah yow. ah ah ñu def. ñu ngi def ñëwal ba léegi nii. amul benn problème. man de lay mel ni maay sëy lépp maa la koy wax. nga bàyyi bàyyi sa yow. <laughs> xam nga lii ba ci monument de la renaissance xanaa bàyyi naa. <laughs>